alaikum, Mboki Sénégal euh, nous la diaspora objectif euh, départ de Maki, les femmes patriotes engagées euh, tey nous ñu à pour def alerte pour que la jeunesse patriotique la jeunesse sénégalaise nous xam ko ndax ki nga xam ne président Macky Sall ak comme nous ci def lu bon rek lañu dëkk fi ne nii na dañoo jëlaat beneen stratégie bi stratégie bi ñu jël nag dañ koo jëmale ci li nga xam ne mooy jeunesse bi te li may wax nii jeunesse bi ñoom ñoo ko moom ndax euh, kii di Macky Sall ak Amadou Ba dañoo jóg di defarlu ay gaal en même temps jënd ay gaal pour mën a yombalal ndaw ñi ñu mën a dem jaar ci ndox mi pour mën a dee ci ndox mi lu tax nag ñoom ñu def stratégie boobu noonu ndax comme def nañ xalaat nañ loolu pour def ko ñu xam ne buñ ko defee gratuitement que dina feeñ ndax yàlla du jubal pexe wuruj kat ñu ne xaaral ñu jël ñu def léegi euh, kenn ku nekk da ngay joxe cent mille ak sa carte pour mën a dem su ko defee que ay nit la ñuy délégué pour ñoom ñu gérer loolu ñoom ñu nekk ci seen ginnaaw ci mbonum état rek kon ñun jeunesse bi ñun ñoo war a yeewu ñun jeunesse bi. ñun ñoo war a yeewu ndax tey loolu yëpp boo gisee ñu koy def c'était juste que rek parce que xam nañ ne instant bii nii que njuuj njaay yi ñuy def nii yëpp pour que écarter kii di président Ousmane Sonko xam nañ ne bu ñu demee ba ci cëppaa ndaw gi xam nañ ni jeunesse bi dinañ révolté wu ne président Ousmane Sonko day bokk ñu xam ne résistance dina am te résistance bu amee ñoom instant bii xam nañ ni ñoom ñooy perte parce que résistance li ko yor mooy la jeunesse te ñoom gis nañ ni. au mois de mars gis nañ ni jeunesse bi ñoo génn te ñoom xam nañ bu baax a baax a baax a baax a baax ni li ñuy def li leen ciy fekk ñu ne nag comme demee na noonu li ñuy def mooy que ñu évacuer jeunesse bi ndax boo xoolee te fan yi passé Amadou Ba mi ngi dem di jël ay milliards di ko def ci làmb ji uniquement que rek pour que maanaam conscientiser jeunesse bi pour yóbbu leen ci euh, pour détourner seen xel. parce que instant bi sonkorisation bi nga xam ne moo nekk partout au senegal partout au monde fi ne ni def leen déranger parce que xam nga li gën a bon ci doomu aadama ngay xeex ak nit te gisoo ko mu lay ñuus di la ñuus di la ñuus te munoo ci dara te loolu moo leen dal ci président Ousmane Sonko dañoo téye président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko nekk fa mu nekk te ñoom gisuñu ko mu leen di ñuus ñoom problème boobu noonu déjà que moom lañ am. motax ke ñom lepp luñu mëna def rek pour que pour que Amadou Ba nek président ñom fi ne objectif bobu lañ nek te gaay nañu yeewu surtout la jeunesse yeewu leen gis nga li ngeen di yéegee ci ay gal di joxe 100000 francs di dem Barça wala fu mu mënti doon euh, risque bobu non ngeen jël ba def ko war ngeen wara mëna jël risque bobu nonu tok seen réew xéxal seen réew ndax li ñuy xeex pour ñun ñëpp la surtout la senes ndax mag ñi dund nañ ñuy dund ba pare dañuy gunge rek kon gars yi nañu delloo si suñu xel waaw état bi moo nekk ci ginnaaw jël ay nit délégué leen ñu gérer affaire bi état di leen pousse kon am na yenn yoo xam ne ñun ñoo ko war a bañ ñun ñoo war a mun a toog suñu réew ñun ñoo war a mun a xeex.

chef de village ñu woo leen jox leen ay oto uniquement ko yooyu yëpp ay stratégie la yoo xam ne Macky Sall ak Amadou Ba ñu ngi koy def uniquement ko parce que euh, bu ñu ñàkkee sens dëgg bu ñu toogee di xoolee xam nga Macky li mu bëgg a def mooy teggi teg Macky teggi teg lay def maanaam moom organiser wul élection pour que keneen falu déedéet moom dafa organiser élection. pour fal candidat am ki koy remplacer ndax yooyu noonu yëpp c'est des choses yoo xam ne ñun ñu ñoo ko watti bàyyi xel te euh, ndimbal na ci fekk loxol boroom lii nag lañ amoon loo xam ne tey euh, dinañ leen ko wax mu doon nag loo xam ne que suñu cri du cœur la metti nañu ndax tey réew jeunesse moo koy doxal sans la jeunesse réew mi du dem te ndaw ndawu tey ñooy doon ay magu ëllëg ndax ñoom gisuñu dara lu dul ngeen dee ci géej gi gisuñu dara lu dul jeunesse bi dee ci géej gi ba jeex tàkk parce que ñoom ñoom ñoom seen lijjanti wuñ loolu ah ndax seeni njaboot nekkuñu fi seeni njaboot nekkuñu fi am na yenn yoo xam ne nag ñun ñoo ko war a bañal suñu bopp yéen jeunesse bi yéen a ko war a bañ bu ko defee rek. loolu lañ indi woon pour wax leen ko euh, di leen jaa jaajëfal bu baax a baax a baax di wax euh, firi Ousmane Sonko euh, fee mu nekk yàlla na ko fa yàlla génne nu mu gën a gën a gën a gaawee yàlla jox ko ndam mu jiite Sénégal en deux mille vingt quatre jërë ngeen jëf.